kon xam naa ngir njëkkante rek dañuy gaaral way nga xam ne moom la def ci sëriñ bi comme ni ko Baay Laat waxee woon yàllaa di buur moo amee sañ-sañ di jëf lu du dañ moo màgg yiw rëy mbir moom rekk rekk a xereñ buur moo amee sañ-sañ di jëf lu dañ moo màgg yiw rëy mbir moom rekk rekk a xereñ moo tàwwu kaw téye suuf ngëb jéeri jaww ji dal womat na jantaki weer biddiw yu gindi marañ tër niir yi teg dënnu yi taw lay ngelaw ak i naaj naataange bekkoor bi mooy fekk lor di ñoddi di jañ moom rekk moo mat a gëm mooy faat te mooy dundale kiy faj di woppale moo lay jox ñeneen ña mu xañ nameelam ak dogalam la bind nit ñi ci ban def leen xalifa ci kaw suuf kenn sañut la mu sañ kii duy ngëneel xut bu yaag wali yu yaag nu jabaa rëbbam ma dal na ca kaw seytaan ma doon wut bañ buuru panras bi ki moom moomee li moom ña ko moom mooy tab bu dul jeele mooy tàllal li ngeen di taxañ moo xam lu nëbbu la peek liy feeñ ci seen périgët naaxul du fàtte mbirum gumbaak ko xel ma la fañ fam rànge yonneen ya ay maqaama ak daraja la tànn Mamadu muy seen jiit li may bëgg a kañ muhammadun xayru xalqillaahi niamatuna salla alayhi na yërmandeem ja ñépp ca jaal mbombe yaasin ma raw cib taar ku tagg ko raw doo patt doo piita doo bémpeñ di dëgg la fañ jaal mbombe yaasin ma raw cib taar ku tagg ko raw doo patt doo piita doo bémpeñ di dëkke toxoñ bàkkal ma surgaam balaa ngay ñëw ci njaati gi la xaadim rasuulu mi tax tey cedd gétti sëriñ ma surgaam bu mag boobee fa mbàkke bawal xaadim ma tax tey cedd dooni sëriñ kabay la yoon nen ba ruujoon ñak sari amu ñoŋ taaral xaqiiqatu leeral diine fépp ne nañ ka buddi buutu biddaa sampaat fi sunna su set moo fóot sunuy dandi xol xel yaa ngi mel ni fariñ ka déjji bàkk ya woon ka déjji pakk ya woon ca ngir ma muy bakkan ak mbokkam ya moo xëcc iblis noonu ba fëgg ko ndañ ka dajji jéng ya daajal ñuy tëggat ak lal moo jàll réew mi ku koy diingat ñu foq sa bëñ foo gis foo gis ku diina jaral këram ya wéet ati at ramu ñoñam yóbbe woon koy natt muy dëkke muñ foo gis foo gis ku ànd aki noonam dem ba dellusiwaat siwaat tiitul raful jàmbatul lambañ mu koy gën a bañ foo gis ku tagg yoneen kem bay way yi bamba yaxal maqaama yaag matta bay mbindam ya gétti sëriñ seenun gisun warunu xoolun wutun amunu ku mel ni bamba ku jóg di raas ko dox ba la fañ seenun gisun warunu xoolun wutun amunu ku mel ni bamba ku jóg di raas ko dox ba la fañ jàmbaar ja jot alxuraan taalaat na jàngu ya fay bën bën ba seytaane doon yërndooñu moo ko samañ mooy nit niteel ñañu ñoot naatal na suuf ni newet nawloonte nooy sunu biir noonoo ko daama ko jañ moo xam ne yi la ju set joxoñ ñu nga njimindéef moo yegg yéegi ñu xuus ba def fa yàlla jalañ tàggat ji haari bakkan la dàqe noon ya du bal kut bàmba ba mu sëggalee bañam ya ñépp la ëñ ka jekku jéggale mooy doonay rasulu bu wér càppaaculib yàlla b xaadim la tandutuwuñ yéegal na yëg-yëg yi yaag suñu xeer jikko yi bon yërëm ñu yiir yar ñu yor suñu lépp daal ñu ko kañ muñ tab lewet bari ngor am jom ne fuux suñu ay seexal nu suuxat nu ab noflaay xorom suñu añ sëñ Bàmba yaay moo ji saat ci rasuul yow lay damoo ba ëllëg kiimaanu kiimaanu kuy kennal borom du la foñ tànneef nga say taalibey tànneef larax raxu la ba yàlla tànnee yoneen tànnaat nga tànn sa ñoñ yaa sàmme suñu ruuy ca suñu siddiite bàyyi ya ba tey reggal nga ñoo bayre reggal nga ñoo barke tax sañ tey gësam suñu njañ yaa tànne suñu ruuy ca suñu siddiite maam ya ba tey reggal nga ñoo barka tax sañ tey suñu njañ ñoo tekki ñoo taaru ñoo takkoy ngalam li bi door ñoo for la ñëpp di jeex nee nañ fi bàmba gufuñ jekkuñ jóguñ waaju ñoo toxoo sa kër abadaa ruur nañ fi yow nekki ndaw yaa ëmb bépp njariñ jekkuñ juguñ waajunoo tuxoo karam abada ruur nan fi moom ni ko ndaw moo ëmb wépp njëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah tarkal la sëñ daam li ngay joos barke ras ak a neex ca cuqulool li ya tax say sa kenn du ko bañ